aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo leen nuyu di leen ziyaar bu baax di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk di ko sàkku ci yéen seen mbokk la Abdoul Ahad Jaxate eh, fii ci daara ji daara si Abdoul Ahad Touba Asalem waaw bu ngeen gisee jataay bi nag li ko waral muy menn mbokk mu baax eh, di suñu dëkkandoo nga xam ne moo joxoon barab bi wax dëgg yàlla amoon ci yéen ju rafet lool ba ñu ko jox it mu jox ñu ko addiya alquran nga xam ne jàng ak jàngal rek la soxla ci barab bi ndax moom la fi doon def ginnaaw bi mu yóbbu donge ca këram xëy na itam eh, ni àddina ay di doxee kenn ku nekk mën nga am sa yéene mën ngaa am sa bëgg-bëgg am pas-pas ci dara jamono dikki sensé loola ko du caagin boobu da génn ci la nga waxoon waaye nag suñu borom mooy doxee la noonu àddinaam ci biir loolu nag eh, fan yi yàlla rek xëy na mu woonu téléphone ngir ay ngant yoo xam ne gaar na ko ci ak njaboot gu mu war a taxawu te itam ginnaaw yàlla ñooñu seen seen seen dundu àddina eh, ci loxoom la ko yàlla teg ndax itam njaboot la gum mu war a taxawu yoo xam ne si ne wax dëgg yàlla ñu ko waxee it nun ñii buñ ko mënoon ta am ko it dañ ko caa war a fekk si ca loolu la jàppale ko ci suñ kem kàttan yàlla dogal na nag barab bi moo wax da koy wecceeku ngir def ko ca eh, ndimbalul ñooña bi mu waxee loolu dane bu ma sañoon barab bi du génn say loxo ndax keneen mënu fee dëkkee ku gën ku maam koo xam si ne li ngay def dina fi def lu gën li ngay def ndax amuñ lu ëpp alxuraan te itam yéen a jam amoon ba tey yéen a jooju la am xëy na nag yàlla ak la muy def waaye ne jàmm moom pexeem rek bëgg-bëggam rek la am bi ñu ko waxee nag ne da koy wecceeku eh, ñu wax ak moom ci biir loolu ne ko ñaata nga koy wecc ko boo demee ba koy wecceeku te itam nee na ngir balaa mu koy wax keneen moom faaw ñun ñu jéem ba tële mu door ko wax keneen loolu nag bu doon nun dong euh, am nañ ci tële waaye nag mbokki jullit yi nga xam ne moomeelu alquran ci seen loxo la ko yàlla teg ndax suñu borom wax na ci alquran fastamsik billadi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun nga xam ne alquran jullit ñi ñoo ko moom ka cay jàngale ka cay nekk di jàngale day day dafa féete ak ak wàll rek waaye moomeelu julli ñëpp la ndax bu doon kër gu ñuy dëkkee rek ngir sunu njaboot duñ ci sàkku ndimalul kenn suñu mbir bopp lañuy def luñ ci def xam xam ne def nañ ko luñ deful xam ne defuñ ko ci waaye lii ne barabu alxuraan la boo xam ne moom sunu moom moomeelu jullit ñi la moo tax bi mu waxee loolu ñu ne ñoo ko nun dey amuñ ko yoruñ ko denc duñ ko fen waaye jàpp nañu sunu borom moom yor na ko te itam mi ngi ci loxol jaam ñi moo tax ñuy sàkku ndimbal ci jaami sunu borom yi rawatina mbokk yi ak xarit dëkkandoo yi mooy barab bi nga xam ne boroom da yi wecc ko ci lu toll ci juróom benn million nu bëggoon képp koo xam ne mën nga ci dara njëkk mu ñuy rëcc ndax itam euh, soxla na ko ci diir bu gàtt boo xam ne euh, xaw naa jamp lool waaye nag lum jàmp-jàmp suñu borom moom denc na loo xam ne kenn gisu ko mën naa nekk tey tey mën naa nekk suba kon daal euh, njagam nun la ko njëkk wax te amaana bun yeexee tuuti karen mën na caa jot te buñ soñan jot ci barab bi di fi liggéeyal suñu borom ci alxuraan di ci jéem a yar ay xale suñ kem kàttan loolu nong ngi ciy dagaan mbokki jullit yëpp képp koo xam ne yàlla mën loo na la ko te li nga yoon nga jàpp na ci suñu borom la jógee sa kàttanu bopp mayu la ko sa sa xam bopp mayu la ko donte yaa ko sabablu bu boobaa noo ngi ciy sàkku nga dimbaliñ ci ngir yàlla euh, baywun kenn xiibun kenn euh, képp koo xam ne wax ji ak si na fi yow ak koo a doon ak foo mën a nekk noo ngi la ci tàllal loxo te jàpp ne di nga ñu ci dimbali ngir jëmmi suñu borom ji waaye defoo ko ngir jëmmi Abdoul Ahad Jaxate mi wax ak yow waaye da nga koy jëmmi euh, alxuraan ji nga xam moo nu boole ngir jëmi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir jëmi suñu kilifa yu baax yi nga xam ne noo ko seex te ñoom seen liggéey bépp di alquran mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara euh, di ñëwoon ci daara ji nga xam ne mooy daara Cheikh Abdoul Ahad fii ci tubaa Aslam xayma yi dégg nañ kàddu yi mu wax léegi ci bërëb bi ak nim ci jote woon ak li ci tolleekuwaat muy yitte joo xam ne dam na ki nga xam ne mooy mooy borom bërëb bi ginnaaw loolu nag euh, ci la ñu woo waxtaan ceeg ñun ñu ne ñu ne ko suñ ko mënoon wax dëgg yàlla ñoo yëkkati 6 millions teg ko ci sa loxo nga jox ko ndax suñu yéene la waaye comme suñu doole matiwu ko li ñu mën rek mooy partagé ko ak mbokki jullit nga xam ne ñoom la suñu borom dénk wërsëg te nga xam ni daara seen mbir la loolu nag tax nañu ci tàllal loxo mbokk yi nga xam ni dañoo bokk ak ñoom si euh, euh, maanaam mbokk gi kon bu ko defee nuyoo bi dañ ciy jiital sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Soy bu Euh, di ko ci tàllal loxo bu baax ci liggéey bii nga xam ni liggéey liggéeyub daara ji daara ji yittewoo ko muy euh, bërëb bi ni ko war a sàkkoo ci jot ko ñu ngi ko ci bu baax a baax baax ngir mu ñëw jàppale ñu ci ngir yàlla jëmmi sëriñ tubaa ngir yàlla ak alxuraan ngir yàlla ak dëkk bi nga xam ni dañ fee gis taxawaay muy taxawaay bu rafet boo xam ni sëriñ daara yëpp ak ñi nga xam ne ñi ngi suivre daara yëg nañ ko ci yëg nañ yëg nañ taxawaayam ci dëkk bi ak ndimbalam loo xam ne mu ngi ko jëmee ci daara saa su ne ndax gis nañ bërëb yoo xam ne sax wax dëgg yàlla ay sëñ daara nga fa di jàngale te wóor nañu ni ci ci ci ci ci mbaaxam ak daxawaayam ci lañ ko jotee kon loolu gis nañ ko dañ ko seede bu baax a baax a baax su ko defee nag xam naa kii nga xam ni moom la ñu sàkkul ndimbal li di sëriñ Abdou Lahad Jaxate mën naa ni mbokkam la mu ko jege ndax euh, sëtub euh, sëñ Saam Siise la kon yaakaar naa kooku suñ ko waxee rek wax suñ son bu suñ saam ak suñ son bu ku leen xam xam ni ñu jege lañ ci bokk kon loolu dañ ci woo sëñ Abdou bu baax a baax a baax ngir mu ñëw taxaw ci jàpp ci te xam ne daara ji daaraam la du daara kenn waaye daaraam la moom ndax daara ju ñu tuddee Cheikh Abdou Lahad am Cheikh Abdou Lahad dafa jàngale euh, di sëtu Sëriñ Sam Cissé Sëriñ Sam Cissé di mbokkum Sëriñ Soyibu loolu ku ko wax xam ni daara ji daara ji Sëriñ Abdou kon Sëriñ Abdou Samad ñu ngi lay woo ci daara ji bu baax nga ñëw taxaw ci ba mu bañ a génn loxoy Cheikh Abdou yi te des nekk daara yi alxuraan ba faw ci ci jógee tamit ah ñu ngi ci tàllal loxo ku mel ni si la torahim askanu njaxate suñu ci jógee tamit ah ñu ngi ci tàllal loxo ku mel ni Cheikh Abdou Bara Dolly honorable député ndax gis nañ ko ci social mu ci dox lu am solo rawatina di ko jëmee ci eh, dëkk bi fépp te loolu teg nañ ci suñu bët donte suñu jëflante moom demewul noonu waaye nag xam nañ ni mi ngi dox ay yitte yu am solo jëmee ko ci eh, dëkk bi te nag ndaw la loo xam ne ndawul dëkk bi la teewal ñu ci ensemble kon am nañ sañ-sañu woo ci li ñu def su ko defee tamit ñu ngi woo suñu xarit suñu Cheikh Thioro honorable député coordinateur Pastef bu Touba moom ñu ngi koy woo ci liggéey boobu waaye di ci woo tamit suñu Mamour Sarr bu ma nee Cheikh Thioro nag xañ na ñu bari danañ xam li tax ma koy woo ndax moom it ndawul Touba di dox ci social da nekk jàmbaar tamit di liggéey euh, dëkk bi kon fa ñu woo ko ci liggéey boobu su ko defee tamit ñu ngi ci woo Serigne Abo Jaxate di sama rak euh, ak waa marché Ocass yi nga xam ne ñoom la nekkal di ay xaritam ñoom it ñu dugal seen loxo ñoom it ñu ngi ciy sàkku seen ndimbal bu baax a baax baax waaye ñu ngi sàkku ndimbalul tamit soxna Ndeye ma jigéen gay ca ndakaaru ak ay xaritam ñu jàppale ñu ci baax ñoom ngir yàlla ak yonent bi ak alxuraan kon daal ñu ngi ci woo képp koo xam ne vidéo bi agsi na ci yow te lu baax ñor la te yàlla dogal nga am wërsëg wax ne mën nga ko yëkkati def ko ngir yàlla ak daara kon nu ngi nu ngi nu ngi ci ñu ngi ci woo ñëpp ndax wax dëgg yàlla noonu ko seeb Abdoulaye doxe bërëb bi ki ko yoroon yéene moo doon bërëb bi di bërëbu alxuraan te it dox na ci yitte ju am solo ndax ku la jox bërëb ay at nga téye ko wax dëgg yàlla am na yéene ci nga yor bërëb boobu kon nag su ba yitte daf ko mu def lii mu def ah duñu def lu sant ko ci li fi jot a jàll te ñaan yàlla suñu borom lii nga xam ne yéenam la tamit di suñu yéene mooy bërëb yu des ci daara ji des des ci loxo si Abdou Lahad di nekk daara ba faaw bërëb boobu nekk ndax dañoo bëgg daara ji suñ ci suñ suñu yàlla dimbalee ba ñu lijjanti li ñuy lijjanti ba jënd ko mu nekk bërëb boo xam ne Cheikh Abdou Lahad mii du ko moom waaye mën a waaye day nekk daara joo xam ne àla kulli àla kulli day laa muy din day nekk loo xam lu sax lay doon nekk daara nga xam ne su njaboot ak njabootam sax bu ñu màggoon mënuñoo soppi bërëb bi def ko leneen lu daara te loolu su ci jotee dana ko wéree ci ay kayit yoo xam ni loolu rek lay mën a doon nga xam ne nekkatul lu nit di mën a jëriñoo lu dul daara loolu nag moo tax ñu woo ci mbokki jullit yëpp képp koo xam ne vidéo bi dox na ba ak ci yow ah nu ngi la ci tàllal loxo bu baax a baax xam naa dañuy joxe numéro yi nga xam ni képp koo xam ne am na loo ci bëgg a leerlu muy sama numéro numéro Cheikh Abdou Lahad mën nañu ko jox muy sama numéro 77 616 03 31 77 616 03 31 waaye di joxe numéro Cheikh Abdou Lahad 77 282 46 68 moom it soo ko wooyee dana la gën a jox ay leeral yu gën a leer ci li xam ne moom la ñuy la ñu kii waaye nag di ci woo way juru dongo yi nga xam ne seeni doom ñoo ne ci daara ji ñoom ñu def ci seen yitte te xam ne bërëb bi seen bërëb la ñoom it kon noo ngi jéglu kàddu yi euh, tey ñaan rek suñu borom li nga xam ne yéen la joo xam ne am nañ ko ngir jullit ñi yàlla nañ ci yàlla jàppale bañ mën bañ mën ko te def ko ba nga xam ne ba ëllëgee tamit dinañ gis leneen lu bokk ak lii tamit ñu mën cee taxawaat ngir yàlla ak alxuraan rek moo ngi tax di jóg ndax tamit dañoo yor kuréel goo xam ne dañuy dimbali ci daara yi kon nag suñu gisee daara ju am jafe-jafe wala mu lottu ci dara suñu warteef suñu warugar mooy jóg dem taxaw daara jooju def ci suñu yitte ak suñu kem kàttan ba yitteem jooju saafaraw te yaakaaruñ ko lenn la dulul ci jullit ñi jullit ñi kese ci lañ yaakaar te jullit ñi tamit daara ji seen bërëb la ñoo moom ndax ku jàngalewut jaar nga ci daara daara sa bërëb la kon nu ngi leen ci tàllal loxo bu baax tey ñaan suñ suñu borom ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil lépp di cant ci barke sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah waxoon naa leen ko dem ci ayab alquran ni wa maa yantiqu ah, anil fu mu nekk ah suratu najmi wa maa yantiqu anil hawa mooy du wax ci bànneexam nekk noonu di def mukk mukk loo xam ne daa jekki-jekki rek xalaat ko rek mu jekk ci xelam mu def ko lu dul ne nga xam ne nga xam ne bu dara masaan xew nii day xaar kàddu yàlla ba xam lan na ko ci yàlla digal mu door koo def bu bu dee loo xam ne euh, diggante nit ak nit la wala loo xam ne seen mbiri seen mbiri àdduna la dakaraan suñu borom ne ko wachaawirhum hmm? wachaawirhum fil amri ak wa amruhum shura baynahum waaw kay xam ne euh, booba suñu borom ne ko del diisoo ñoom bokk na sax li ñu leen tagg ñoom saxaaba bu wute leen aw saar may suuratu shura may saaru diisoo loolu nag mooy jëflante gi mu daan jëflante ak ñoom loolu moom faw seeni xel da cay aje ak seen i xalaat yu xeet ak yooyu li nga xam ne nag moom lañu war a jàng ci sam li ñu war a jëfante suñu diggante suñu borom loolu moom yonte bi amu ci xalaat la ko ci suñu borom sant dong la ca sañ def lam ko ca wax loola ci sañ a wax lam ko ca def la ci sañ a def sayiduna muhammad jaamub yàlla tey ndawam lu mu yónni ci mbindeef yépp nit ak jinne ci li des ci àddina lu mu wax yàllaa ko ko waxloo lu mu def moo ko ko defloo la mu daa def ak la mu daa wax ñoo di sunna ak xadiis ku ci weddi dara lu tuuti tuuti ab yéefar la ku ci wàññi darra wala mu yokk ko ci ab saay-saay la bu bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm